kootu ñu am ak Côte d'Ivoire <laughs> loolu moo di am. mais bu ñu ñëw si match bi carrément. oui c'est-à-dire que le sous-développement Mohamed aussi il est arbitral. le sous-développement. il est également euh, arbitrage bu bu Cameroun. et l'arbitre gabonais n'a pas été un gars <laughs> <laughs> ah ça ça c'est n'a pas besoin de chercher de titre là. xam nga il n'a parce que dëgg bu joxoon carton rouge Sadio Mané. Mhm. personne n'aurait créé au scandale. Ah, mais quand même du question damay rattraper wu si erreur ba. Sénégal su amee penalty nga bañ ko ko nga bañ. nga ko kaa jox. absolument. Euh, l'arbitrage a été très très très moyen. Mhm. si li nga xam ne mooy l'ensemble du match. Mhm. par rapport ak niveau match bi. l'arbitrage a été très moyen dépasser mais bu ñëwee dans le fond xam nga souvent dañu la naan Sénégal ñëpp ay entraîneur lañu. Mhm. ñëpp mënuñu doon ay entraîneur mais y a des du ballon rond. ñu bëgg ñu bañ ko. vingt ans plus ba ngay nekk gune ba tey. yaa ngi topp football football rek lay saraan. dëgg yàlla. championnat France Italie. Italie Espagne lépp lay saraan. wallaay di déglu experts yi di développer. quand di argumenter. di di faram-fàccee ay match soo xamul football kuy kat moo koy. ay ay yoo xam ne y' a vingt ans trente ans. di ñëwaat di ko faram-fàccee. Hmm. bu dee loolu nag da nga koy dund ala kulli àll. nawuñu entraîneur nga waaye di nga xam dara as tuut si football. te démb ce domage est dommage. Hmm. Euh, ñu bëgguñu bañ. Hmm. suñu coach moo ñu éliminé. choix tactique bi. Mhm. répondre na si yenn match yi. Mhm. mais dañu war xam ni match Côte d'Ivoire bi maa ngi ko doon wax sama gars yi bu ñu toogee ma ne yéen ngi wax match bi day yomb rek. Mhm. match bi dina bokk si match yi gën a compliqué. si matchu Sénégal yi man loolu laa parce que repêche épi repêcher équipe mu nekk à domicile une bête blessée. dàq entraîneur wala dàq entraîneur. quand même defe naa ni loolu la mais démb Emerse Faé bi nga xam ne mi ngi doog a ñëw bees. ñoo équipe nationale. def naa ne nag war na suñu coach bi benn expérience boo xam ne. ñun daf ñoo xaw bett. et puis le plan tactique daf ko duma. waaw tamit ñun mënuñu dugal à la quatre quatrième de jeu. ba pare bàyyi bal bi Côte d'Ivoire parce que la meilleure façon d' attaquer de conserver le bal. la meilleure façon de défendre c' de conserver le bal te ñun match bi yëpp dañ ko défendre on a subi. man loolu moo ma jaaxal. parce que on a eu un milieu de terrain totalement noyé. Mhm. Pape Matar Sarr pas Lamine Camara il a été véritablement dëggantaan ñu bëgg ñu bañ ko te démb euh, changement yi Emerse Faé def moo nekkoon le déclic par rapport à la Côte d'Ivoire bi am pénalité ba dugal bien sûr parce que boo àndee caissier andi Nicolas Pepe génne Fofana bi nga xam ne il a été dense mhm. de terrain def naa ni tolloon nañu benn jamono joo xam ne waroon nga renforcer Abdou Diallo. peut-être mën nga ko woon remplacer par Abdoulaye Seck ou par Cheikhou Kouyaté. choix la rek. parce que banc bi lépp fa am. Pape Matar ak euh, Lamine. mënoon nga ñëw andi Nampalis ou Pathé Ciss. wala nga andi comme ni nga dugalee gànn. et même remplacement wu. Habib Diallo bi. mënoon nga bañ a dugal Habib Diallo loolu moom kenn d'accord waaw même bu dee da nga koy génne d'accord ma ak match bi enjeu mu demee mm-hmm. ak ivoirien fu ñu doon jaar ni ñu doon jaaree bi ak ak espace mu yaatu woon mënoon nga bañ a dugalaat un attaquant mënoon nga bàyyi Sadio Ismaïla ca kaw ba ba ngay remplacer Ismaïla par Eliman mm-hmm. nga àndi encore loo xam ne dafay gën a dafay gën a renforcer ce milieu de terrain milieu bi parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire trois remplacements trois milieux de terrain remplacer trois milieux de terrain yow nga àndi deux milieux de terrain te moom moo moom milieu terrain bi depuis bi nga dugalee but. donc dañu koy xool technique tactiquement la Côte d'Ivoire nous a techniquement la Côte d'Ivoire nous a dominé maintenant tamit nous n'avons pas été du tout clinique. Mm-hmm. on n'a pas été clinique. parce que Sénégal am na ay multiples occasions de but. Mm-hmm. yoo xam ne malheureusement. démb euh, voilà on a perdu la lucidité. euh, tu as vu bal bi Ismaïla di jox Sadio. ça arrive dans le football c'est le football. mais quand buñ koy rappeler dañ koy wax démb nag euh, Côte d'Ivoire ñëw na moom xam la la gagné allons-y les gars. Mm-hmm. Côte d'Ivoire allons-y les andi. tout allons-y les andi. te dafa meloon ni amuñu pression la pression dafa mel ni ñun la. gën a non noo ko noo ko mujj yor. alors que yow daf nga bi mi ngi doon douter boo xoolee en temps match bi l'équipe était dans le doute. ba nga dugalee but l'équipe était dans le donc ba nga dugalee bu nga dugalee but si nga waroon def nag la jeu de conservation du ballon mhm. Mhm. pour créer les pour mën a tollanti lii nga xam ne am nga ko à quatre quatrième minute muy but bi nga dugal mhm. mais on a lâché le ballon et on a laissé le ballon à la Côte d'Ivoire mais qui a fait son jeu tey jii nii bu ñu demee prolongation changement ngay xaar nga xool espace yi nga xool jour yi par rapport ak réduction euh, écart yu doon am si réduction espace yi nga xam ni ils étaient physiquement lessivés mhm. nga war a andi cent loo xam ne en réalité yow sa objectif moo doon daakaandeel sa milieu de terrain ba pare réduire espace yi au niveau de la défense et du milieu de terrain ba pare am nga ñaar ca kaw loo am sërëxal parce que ñoom ñoo doon attaqué pour wut but. mais c'est là où on, où on attend les grands entraîneurs Abdoulaye. oui parce que euh, bees bees la nga gis. Euh, benn équipe favori ñu dem ba benn moment ci jeu bi ñu dominer la carrément revenir au score foofu Ablaye boo amul mental euh, sortir les les les <laughs> tactiquement nga génne ji sa joueur moi je pense que ne foofu la ñuy xaar euh, entraîneur bu bu coach bu bu bu bu tabarkalla quoi. c'est-à-dire bu demee dans tous les grands championnats. <laughs> wala dans les plus grands clubs. boo boo xoolee. technicien yi tey jii nii Guardiola boo ko dominer deux un wala wala tey une équipe comme le Real tëkkaloo ma ko ak Sénégal mais saa waay boo ko dominer deux zéro yow yow mi ko yow mi ko dominer deux sax sa xelu lu dal. nga xam ne à tout moment mën na la remonter. mais loolu c' est des c' est des choses yi nga xamante ne nii. aussi entraîneur dafa dafa war a jouer sa mais boo jëlee l' entraîneur l' Algérie. Hmm. léegi il lui arrive mu jël Mahrez teg di dingi. oui. si en plein match mu wàññi ko. oui règle du si plein match day génne Ziyech donc ñun itamit dafay am moment yoo xam ne dafa am loo xam ne danga koy soxla. yow wutal benn flèche comme Sadio mën nga ko bàyyi sur le terrain benn flèche boobu nekk si kanam wala ñaari flèche yooyu si kanam. si kanam nga des da nga koy daakaande. Mm-hmm, nga bétonné te démb match bi lu ñu soxla woon moo doon ñu bétonné suñu milieu de terrain milieu bi. am ay récupérateur ay conservateur de balte li nga wax Pape Gueye. Mm-hmm. absence am dafa fës dafa feeñ dafa ràññeeku. Mm-hmm. bu baax dex naa la ko euh, fii la dem fa ma ne la nag bu absent we rek c'est encore la faute du coach. Hmm. parce que am na jour yoo xam ne boo leen seeni ñu am gêne bu gën a ndaw. génne leen da nga leen di préserver génne leen parce que boo leen fa bàyyee blessure da leen fay fekk. te blessure boobu mën a tax ñu forfait te looloo ñu dal si Pape Gueye. c'est ça maintenant Aliou Inzara amené une CAN alhamdulilah. Hmm. CAN bi objectif bi xamoon nañ ko moo doon andiwaat ko wala da ba dem ba demi final final. Parce qu'on avait les moyens et l'équipe qu'il fallait pour y arriver encore une fois. Mais là, je crois bien que après trois cannes, si trois cannes yi remporte une canne je crois bien que c'est le moment pour moi de passer la main parce que yi tamit dañoo soxlawaat un autre déclic. parce que le départ de l'entraîneur français a créé un déclic chez les Ivoiriens également. c'est ça voilà. Chamara. waa Ablaye de moom. mën nañ ko si yokkal rek euh, tegaale fa Ablaye Diaw rek parce que c'est un consultant il a fait man euh, pour man euh, la Côte d'Ivoire n'a pas gagné c'est le Sénégal qui a gagné le Sénégal et quand je dis le Sénégal qui a gagné le Sénégal c'est la responsabilité mm-hmm. du du du du management même de de l'équipe xam nga soo ko mosee wax ñu ne la Sénégalais moo teel a doyul loo wax Aliou Cissé indil nañu coupe d'accord Aliou Cissé indil nañu coupe mais même booy xool effectif bi nga am ren qualité bi sax plus ngay dem plus ngay am plus de qualité. Mhm. je disais que euh, demain si Sadio Mané n'est pas tu peux avoir ñi nga nekk si 17 di 20. Pape Matar Sarr il a fait toutes les classes. Mhm. Euh, Pape Gueye ak ñeneen ak ñeneen mais Ablaye euh, dama doon waxtaan ak sama benn xarit Dame Ndoye international sénégalais ma koy nuyu. de mhm. de passage. Dame Ndoye dama koy remercier sax si vous permettez ci turbine bi. parce que Danemark fi mu nekkoon.